comme nous rek ñi point que pratiquement question troisième mandat avec la sortie de Ismaël Fall réaction bi li wax bon je pense que euh, ce li ñu reconnaître mooy Ismaël Madior Fall léegi politicien la ko rôle politicien parce que si leen ko bëggee universitaire bi rôle bii mu yor euh, parce que li mu njëkk wax mom mo nekk ci xam-xamam mo nekk ci dënnam mm-hmm. man loolu la gëm motax buma gisé nit ñi diko critiquer dama né mais da fay défendre li nga xam ne moom la gis ne politiquement mom moko ki donc man franchement dama né jaaxaluma bu taxawoon université de Dakar dans un cours magistral wax li bu boobaa ma jaaxle. mais mais tamit bobu nonu suñuy wax dañuy wax homme politique ñaara ko teunk waaw muy loi. Mhm. Euh, d' abord muy éthique ak morale. waaw ak la parole. ndax suñu dëkk ñun fi Sénégal dafa am soxla ñuy laaj ndax Ismaïla Madior Fall est-il de parole et valeur ndax Sénégal dañuy wax ni politique soo koy def. Mhm. amoo ci parole mooy kàddu ndax booy dagan baat sa kaddu nga leen jox ne leen su ngeen ma joxee nangam. ma def nangam. Mhm. ñu gis la xool ndax am nga ay valeur. ñu gis ni say valeur naw leen ñu dénk la ndax nit ñi si loolu lañ lay yaakaaree jox la. ndax nit ki bu demee ba yooyu noonu kàddoom taxawatul. ay valeur am ñu koy remettre en cause est-ce que kooku noonu war jar na mérite na que ñu koy ñi ñu koy jël di ko teg pour mu jiite askan ndax dañuy wax ni xale yi ci ñoom lañuy roy ndax ku ci nekk tey boo amee doom da nga naan royal ci diw ndax royukaay la. mais hmm. kooku noonu bu demee ba kàddoom taxawatul. Hmm. est-ce que war nañu mën a roy ci moom. waaw mais moom xam nga bëgg-bëggam la wax foofu mais du moom sax moom mooy dagaan baatu baatu baatu askan wi moom dafa ne moom deux millions de cartes la bëgg bu deux millions de cartes amee affaire bi du affaire justice na gaa yi dem. Hmm. mais nañ xaar ba mu àgg ci 2 millions de cartes am yooyu. mais ministre de la justice war na waxee noonu. non moom bi muy wax foofu nekkul woon ministre de la justice. est ce que mën na est ce que sénégalais bi mën na def la différence entre Ismaïla Madior Fall le ministre de la justice ak Ismaïla Madior Fall le militant de l'APR nit ñi mënuñu def la part des choses. soo leen bëggee dissocier day jafe. waaw waaw suñu culture moom noonu la nit ñi dañ leen bëbbale fa même parti politique dañ naan parti diw parti diw alors que ça c' est un non sens. man li ma gëm mais gis nga euh, débat boobu. Euh, il y débat un débat dafa compliqué parce que euh, à l'époque si nous avons suñu président Alassane Ouattara nous avons eu wax mais Ouattara mm-hmm. mais finalement qui m'a pour me remplacer ko donc mu parce que les conditions sont exigées. parce que nous, ci gis-gis wax ji solo c'est pourquoi foofu laay nawee président Ablaye Wade bam waxé ba wax ji sonal ko bam mu kiyee man ma waxone waxeet c'est-à-dire qu'il assume que mom mo waxone li génn na ci président Macron gis nga bi coow li buggee jog France sur sa dame et tout ça mhm. dafa génn ne fang affaire yi ne ni la ñëpp xam débat bobu ñu clore ko dem ci leneen

nalo indil argument contraire te légui xam nga lan mo ci jafé jafé bi moy demb mënoon nga wax génn ci. dara du la ci fekk mais légui boko waxé ñu vaar la. xale yi dañuy jël sa extrait yi nga waxoon demb ak barki demb génnel la ko ne la waaw léegi nag loo ci wax maintenant c'est à ce moment là qu'on attend l'homme d'état soit nga assumer li nga waxoon soit nga ne génn na ci bo ci génné nit ñi xamné yow génn nga ci li nga waxoon la nga waxoon teguwul fenn nit ñi avancer ci leneen. mais dans un pays bu nga xamné dañu am culture. Hmm. ak suñu culture. dañuy wax ni la jom la fulla la fayda la kersa. Hmm? su ñu demee ba valeur yooyu noonu nga xam ne moom la ñu war inculquer suñuy val suñu suñuy doom ñun ñi nga xam ne ñun ñooy mag jël valeur yooyu noonu di leen di piétiner est hmm? réew moom noonu fu mu jëm baax na. mais xam nga réew moom fu mu jëm baax na parce que xam nga li ma gëm man. Hmm. mooy la souveraineté appartient au peuple gis nga su fekkee ne peuple bi mu ngi tenir en ces valeurs là ba léegi. ku def loolu ñu sanctionné la. man lool la gëm parce que la démocratie c'est ça aussi mais démocratie tamit dafa am ay textes yu ko régir waaw si biir texte yooyu noonu du ñu xaar ba yegg ci peuple bi texte yi da ko war a régler ba pare waaw c'est pas parce que ni comme li ñuy li ñuy faral di wax ne pour nga dem élection il faut nga am critères yooyu remplir c'est pas parce que ni remplir yoo critères rek su la neexee dem déposer am na yéen yu nga xam ne yéenul maanaam waaw waaw mais d'accord mais xam nga ismaël Madior Fall bi ngay wax ni <laughs> c'est dommage ñu ko tudd mm-hmm. il n'a pas prêté serment devant le peuple waaw si fait qu'on est président de la république moment de faire prêter serment la loi prévoit des dispositions parce que ça c'est le parjure. voir mhm. wax ramener xam serment bi daf violé. Mhm. mais Ismaël Major Fall n'a pas fait de de de de serment ni de donc de pas de parjure Moi, dafa dañ ko interroger en tant qu'acteur de la rédaction de la constitution Qui ko commandé pour mu defaral ko ko mu dispositions ko disposition yi wax ko esprit bi nga ci a été mhm. mu bindal ko ko ni expliquer pourquoi nous bindee ko ak liñ ci recherché nit ñëpp dégg ko tey jii mu ça veut dire que la nous doon wax nekkatul et que les gens en prennent acte À 221, une autre vision de la télé.